wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman wajaal kalami rashidan wa murshida wa fikirati nawi wa xalbi arshida bismillahi rahmani rahim bàkke ben Touba kon jërë ngeen jëf mbokk yi xam si yéen ngi topp seen seen Touba Vision fii ci biir réew mi ak ci mi ñi nga am mbégte ji dikkal leen ci benn jotaay di diine euh, tey ji di yem ak aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai atum 2023 bu yem ak màggal sëñ Abdou Aziz Bara Mbacke tey jii ñu nekk nag fii ci côté usine glace benn leeram doomam sëñ Xaadim Mbacke ibnu sëñ Abdou Aziz ibnu Cheikh Amadou Bara wax dëgg yàlla muy kenn ci kilifa diine yi rawatina képp koo xam si yàgg naa topp waa kër sëñ Bara digganteem ak taalibe yi ndax ñëpp foo xam si ñëw nga ci barab bi da gis mbooloo mi macha allah góor a jigéen mag ndaw kon loolu mu nekk liggéey boo xam si sëñ Xaadim Mbacke am na ko fii ci diwaanu Louga waaye ci Touba ak mboolem dëkk yoo xam si suñu borom def na ay wëllëram ak ay taalibeem nekk fa kon liggéey bi tey ñu ñëw ci wàllum waañ bi di eh, yemook eh, sëriñ Birame Seck moom nga xam si kenn da ci soldaar sëriñ Xaadim Mbàkke yi daanaka ko gis rek sa xel xel dem ci sëñ bi waaye noonu la ko mel ak moroom ay moroom yoo xam si suñu borom def na ñii ñi ngi ci wàllum kuréel gi nekk ci wàllum organisation bi waaye ñoom ñu féete ci wàllum waañu mooy yemook sëñ Yoro Gaye ak sëñ Omar Diop eh, kon ak sëñ Cheikh xam naa kon dañuy jox suñu kàddu sëñ Birame sëñ Birame suñu bëgg a dikkee yoo rek mooy liggéey bi gis ngeen ni yàgg nañ koo téye Touba Vision yàgg na koo téye waaye dañuy gis ne année bu jot liggéey bi day yokku ñu bëgg xam yéen taxawaay boobu am ngeen koy rawatina yéen nga xam si yéen a féete ci wàllum bernde. asalaamaaleykum eh, ñu ngi tuub bu baax a baax di jégalu mbooloo mi di eh, wax ci kàddu ndigal lu nu xaw a tële waaye di sant bu baax a baax sunu yaakaar tey ëllëg di sëñ Xaadim mi nga xam ni day sunu bunt ci sëriñ Touba gisuñu ku dul moom xamuñu ku dul moom dégguñu ku dul moom muy sunu sakk di sunu tiitër di sunu lépp te di ñaan yàlla it mu doon ki nga xam ni moo ñuy jullee sunu yàlla jëlee fii. di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wér ndax bu fi yàggee rek sant na bu baax waa ci waañu nag ñoo ngi fi nekk ak euh, ku ñuy wax man maa ngi fi nekk nekkal fi sama jëwriñ sëñ Ibra Kebe nekk fi taxawaay sama taxawaay bopp tamit ak ku ñuy wax Ibra ak ku ñuy wax Cheikh Cheikh Gueye nekk fekk ak la Mor Dioum ak euh, ku ñuy wax euh, Yoro Gueye nga xam ne dafay ñëw bokk ci gan yi Euh, ñëw di laxasaay sëriñ Touba nekk sunu mbokkum Tidiane waaye dafa ni sopp gim sopp Serigne Khadim ak gis gim gis Serigne Khadim moo waral mu nekkub Tidiane ñëw nam ma liggéeyal Serigne Touba tey ji ngir gis si njariñ mu muy kii ni topp sunu gannaaw waaye ñu nag dañ fee nekk euh, nekk fi si ñaari côté benn bi ñu nekk fi si daayira bi ñaare bi ñu nekk fi si côté jaayante bi ndax lépp loo xam ne mi ngi dox ci biir waañ wi tey jii nii jaayante bi ñoom ñoo ko sasoo def ko euh, muy fukki mbana ak ñaar yoo xam ni yuñ fi defar la ak euh, ñeenti juróomi gàtt yoo xam yu ñu fi defar ay nag yoo xam yu ñu fi defar la ak ndékki yeeg yëpp ñu moom lañu fi fa sasoo def ko di ñaan nag suñu borom yàggal ñu ñu yàggaateewe ba lépp loo xam ni lu sëñ bi yaakaar la sim xelam xalaat ko rek daan ko mën a def di si tàllal loxo képp koo xam ne yaa ngi ñuy dégg nga dugal sa loxo si jaayante bu baax dugal ko ci daayira bi bu baax a baax ndax lenn rek ko sas lenn rek moo ko yëkkati ngir lu noppal sëñ Xaadim ndax doonu suñ doy gor amuñu leen luñ bëgg ci àdduna lu noppal sëñ xaadim loolu moo waral daayira bi bi mu fi taxawee am beneen kuréel gu fi juddu tuddee seen bopp ñu tuddee ñu jaayante bi di ci tàllal loxo niveau képp koo xam ne yaa ngi nekk soppee sëñ xaadim wala taalibeb sëñ xaadim wala wëllëreeb sëñ xaadim ak kum ci mënti doon jaayante bi mi ngi lay tàllal loxo di ñaan nga dugal ci sa loxo ak sam xel ak sa li ibbil na seen bunt ci côté bi nag ñoo ngi tuub bu baax di jéggul bu baax a baax